waaw ginnaaw baatu auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ma sante yàlla di julli ci Yonent bi sama ñaari waajur waaw di ñaan une minute de silence pour suñu papa Gaston Mbengue mi fi wàññeeku ñu defal ko une minute de silence rek après bi doog a lépp lu ñu wéyal allah sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ma sante yàlla di julli ci yonent bi bu baax di gërëm sama ñaari waajur di gërëm waa parcelle yëpp 1 ba 26 bàyyuma kenn waa Cambérène waa Grand Médine waa Nord Foire waa Cité Damel waa Nations Unies waa Cité Fadia golf fépp foo xamante ni ku ñuy bëggee mi ngi fa rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar di nuyu sama mbokku mbër yi ngeen fi fekk ak sama supporters yi nga xamante ni ñoom ngeen fekk di nuyu képp koo xamante ni def na dérangement ak déplacement ñëw fii maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama papa sama grand sama lépp grand aada mi ngi taxaw sama wet ñi nga xamante ni lépp moom la ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal ko mu fekkee lépp waaw di nuyu booy fay mi nga xamante ni boobu combat bi taxaw ba léegi amul jàmm lekkul naanul di félicité Niang Baalo bu baax a baax a baax si victoire bi mu am di félicité Mamadi Ndiaye di encouragé Boy Franc mbër di encouragé Talfa xam nga di leen wax ne làmb nii la ñun ay espoir lañ te li suñu kanam moo ëpp lii di ñëw yàlla na li si kanam dàq li ñu romb yëpp képp ku si am ndam yàlla na ndam li jik képp ku si am defet yàlla na defet yi yem foofu li si des yëpp nekk ay ndam di nuyu Giro Seras moom it amul jàmm amul salaam di nuyu waa écrit bi yëpp bàyyi ma kenn waa Dodoraat waa écrit Grand Médine waa Rock Énergie maa ngi nuyu Pambay ñu bi léegi ñoom Vieux Top ñoom Dame Suguer xam nga di féliciter Julo ci victoire bi maa ngi ñëpp suma ma rek damay juum ñu jégal ma si lim bi mais maa ngi nuyu parcelle yëpp parcelle benn lañ di woo samay grand ñoom Modou Lo ñoom Papa Sow ñoom Franc ñoom Goro Sock man seen rak laa maa leen di woo ñu ñëw jàppale ma di woo képp kuy autorité da nga ñëw jàppale ma man seen rak laa di wax képp koo xamante ne da nga béggee bégee combat bii sa combat la képp koo xam ne sama dëkkandoo nga ñu bokk parcelle combat bii sa combat la man xalelaa laa àdduna du neex ba ma doon leneen lu dul seen rak maa ngi jégalu ci kàddu yi di nuyu supporters yi di leen wax ne bis bi bari sëñ Fallou seen bis la nañ ñëw taaral stade bi yàlla may ñu ndam ñu duma ko daan ko ñu ñibbi incha allah rabbi. ayca ñu ñëw ci question bi nga xamante ne moom moom li may wax moom bëriwul dimanche ñaari fan a si waaw ki muy bëreel moo ko gën a soxla man dama soxla bés bi. làmb ji ma jëm làmb ji ma jëm dama koo soxla te dafa am fu ma teg sama bët si làmb li may ñaan mooy yàlla na ma yàlla suturaal yàlla ma yàlla lafal cat yàlla may ma ndam lu seddu guy maa ngi sàkku ñaan si ñëpp waaw cat dafa gaaw yàlla na ma yàlla lafal cat na ma nit ñi ñaanal bu baax a baax a baax waaw xale laate waaw soxla naa bis bi torop waaw donte làmb foola la mais bis bi dama ko soxla sama waa écrit ko soxla waa parcelle dañ ko soxla maa ngi si def dañ naa si ay coono yu yàlla nañu yàlla fay coono. ayca moom mi na da ni da gëm ni xaw ma ko rek. waaw na gën ni xaw ma ko na gëm ni entraîné wu ma na gëm ni dama toog politique bi loolu na ko gëm buñ demee si jiw bi moom dina xam lan laa mel quoi li ma koy wax rek mooy góor balaa nga koy yab ñam ko loolu rek laa koy ñam. bu soobee yàlla suñu borom bu ñu yàlla mayee gudd fan ak wér may ko tal ak fekkee may ma tal ak fekkee incha allah dinañ jëflante. dafa am bër moo bu ñëw téye boppam làmb ji amul téye bopp amul joxe bopp. mais bu ñëwee taxaw téye man dañ maa sant ma ñëw jël si li ma moom man li jël tiw ma lan lay indi. bu ñëwee liñ ma sant mooy demal nga jël li nga moom man ndam laa jël si incha allahu rabbi li jël tiw ma lu muy def. def. léegoo li ma la moom li muy def concerné wu ma li ma ñëw pour appliquer te bu arbitre sifflé dama koy appliquer. mais ñaar ñooy fekk xam nga koo xam ne ni yaa ngi lijjanti dëggal na boppam maam dëggalul boppam mooy ki nga xam ne ni di nga ko xaar wala di nga am looy xool ci moom man lijjantiwu ma dara si moom man la doomu Grand Ada damay jëli li ma moom incha allah rabbi. lan la am ci combat bi puisque muy doon wax bàyyi na may mu indi ay sàmm ndax nee wax kese nga am ci combat bi ak daan moom lan la am ci combat bi. combat bi lëmbal kese la sam ak téyex ñun ñoo ko dàq fecc ñoo ko dàq ambiance waaw bugguma wax ju bëri parce que bugguma ñu yaakaar ni dama xeeb ak yooyu boo ma samay sax di déborder mais daal en tout cas na xam ki muy fonk bis bi may wo sama samay mbokk salum Saalum bu baakha baakha baakha baax ñima mëna tel kurus dañ ma tel kurus ñima mëna ñaanal na ma ñaanal sama adversaire Mor tin la tuddu kep ku si mëna a def ay ñaan def ci ñaan Mor Kankang mu tuddu Mor tin dañ ma ci ñaanal ñima mëna tel kurus dañ eh, eh, ma tel kurus waaw man lamb ji dama ko soxla dafa am billahi wallahi taala waaw man salum salum la bu ma koy te mbaxal rek nah, mais nah, nah. bëgguma sax demagum si débat boobu bàyyi ba ma daan ko ba pare damaa bëgg ñu may déglu ñu xam ne damaa fonk bis bi nañ ma ñaanal li si war def naa ko dañ naa ay coono ñoom booy fay ñoom ñambaal ñoom giro may ñu ma dara entraînement naa li ma war a entraînement li si des mooy ñu ñaanal ñu ñu dégg suñuy loxo yàlla yàlla suturaal ñu may ñu ndam duñu naagu duñu xeeb adversaire bi duñ ko ñàkk a nawloo waaye dinañ am nañ sañ-sañu ñaan suñu borom yàlla may ñu ndam loolu la ñuy ngir yàlla xam ne ñun dañoo doyloo yàlla wóolu yàlla auzu billaahi bu baax a baax la siyaar di nuyu nekk ci stade bi yëpp tey open de presse bi tey lu tax nga indi fii ci terrain église parce que gis nañ ne da ko daan defee sa koñ mais dara duñu bett ay xale lañ. Mhm. ñun ay xale lañ te ñun xale rek la ñuy mës a doon te àdduna il faut persévérer il faut ngay ubbi bët ngay maanaam am ay mébét tey borom bitigu mbagg boo gis boo ubbee xol bi magasin bu rëy nga siy fekk ñun ñëpp ay doom parcelle lañ drapeau parcelle la ñuy défendre. tey stade bi ku fi ñëw benn couleur ngay défendre muy parcelle booy ñëw ci stade bi stade bu parcelle ngay wax kon ñoo bokk lépp tey kontaan naa parce que bi ma ñëwee fekk naa booy fees fi dell samay mbokki mbër ñëw soutenir ma jàppale ma samay xarit ànd ak man ku su ni ñoom Zim ñoom Mandiaye Top ñoom xam nga mu Alvin ñoom Tafa fay ñoom Leyti Zo xam ma bàyyi ma kenn ñoom Lay Kopar xam nga ñoom Ndiaga ñoom Bébé Sall Maurice xam nga ñoom Moussa bu ndaw ñoom Nama Sané waaw booy interview yëpp waa dental waa parcelle 1 ba 26 bàyyi barki alxuraani karim aw ma seen fay waa interview man seen doom laa seen rakk laa seen jarbaat laa maa ngi leen di woowaat du ma mës doon lenn lu dul seen doom bëgg rek parcelle jëm si kanam moo tax may jéem lépp lu may jéem maa ngi woo ñëpp képp ku gis ne dafa mbër sax woowu ma maa ngi profité fii di la wan ni sa rakk laa maa ngi sukkaat ci tànk di la woolu muy mbeuri mag yi fi ne mi mbeuri ndaw yi fi ne muy supporter yi muy mag yi muy ndaw yi ñun ay xalé lañ té ñoom bu dee ñooñu mag bu dee ñun juum nañ sax nañ ñu tek ci yoon di képp kuy entraîneur entraîneur équipe bo mënti doon ñu ngi saku sax xam-xam parce que ay xalé lañ rek Parcel 100% la écrit yi la ni rek mais ñoo bokk nday ñoo bokk bay waaw ñoom maab sa su maab sa ous garga ous garga ak bébé ak usu bébé kii num di usu bébé magam ak kosi ñoom Kaare ñoom Dev bàyyi ma ci kenn kosi yëpp parce que tey boo limee rek da ngay juum mais Dev ak Kaare dañoo sonn ak ñoom usu bébé maa ngi nuyu bu baax a baax borom daaru Thierno waaw maam Thierno borom daaru borom Géejawaay maa ngi koy woo bu baax di woo sama mbooku patriotes di woo képp kuy autorité parti may ma rek dafa am lu tax parce que gars yi bëri ñuy génn ñu ne dafa am bëri saa ni gars yi ñu ngi koy jàppale namul dara te bàyyi tey am na samay sarax yu nga xamante ne dañ maa jàppale pour ma def ko maa ngi woo autorité yi pour ñu jàppale ma parce que tamit xam nga fii kenn mënul ku ñu jàppale rek moo fi ne mais instant bii nii on a besoin dañoo am soxla si jàppale bi muy autorité yu fi ti nekk muy parcel ak feneen muy képp koo xam sama mbokku patriote nga muy koo xamante ni feneen nga bokk nga xam ni parcelle nga dëkk wala dëkkoo fi maa ngi lay sàkku ndimbal parce que làmb dafa métti instant yi yi waxaguñ si billets yi waxaguñ si añ bi waxaguñ si samay sarax ak samay frais dara matagul maa ngi sàkku gars ñu jàppale ma. dina ñëw dina ñëw gars yi ñëw leen Tafa. waa déglu ma ne benn affaire maa ngi ñaanal sama doomu ndey Petit Lo Petit Lo ñoo bokk benn bis bu ñuy bëre amaana sax tey lañ bëggoon boole affaire bi def ko benn mais lom propose Dieu dispose yàlla moo dogal mujjul antu mais maa koy ñaanal ndam moom sama doomu ndey la. deuxième question bi tafaa parce que première question bi yàgg nga ci trop après nga woote Tafa voyage bi nga def Maroc nga dem waaji adversaire bi dem waaji ñu ñëw gis adversaire bi di Mor Kang Kang xaw a yokk ci wàllu maas Tafa mbër xaw a wàññeeku contact bu bari la takk gant bu bari la daw ci naaj bu tàng la wala ñàkk entraînement la. non euh, coono mënta ànd ak yaram lu leer laa la wax bi ma ñibbisee. ñoom booy fay dañ maa mayul dara contact naa bay bëgg a dee physique naa takk naa gant coono yu nekk daj naa ko man nag uti wu ma woon yaram man doole laa uti woon te gëm naa ni am naa doole bu ñu jàppantee dina si xam dara waaw ay yaram ak yooyu amul solo Modou Lo mooy suñu kilifa te mës mat 120 kilos mës ta mat 115 kilos kon yooyu amul solo liggéey nañ te wóolu nañ li ñu liggéey te ñun duñu ay muscle court ay muscle long lañu Tafa dañu gis ci sa départ nga tegle ay pli de victoire tey jii ñu doon xaar Tafa mbër ci gaa yi muy fëgg ci gaay yi ci espoir yi nga xamante ni ñoo gën a ràññeeku ci làmb nga jekk saa yu ndog-ndog am xàmmeetul Tafa mbër par rapport ak bi ngay bëreeg ay ñoom dangu teye caatu Kër Massar wuli gaay yi di leen dóor muy daanu mais Tafa gën ngaa wane sa bopp est-ce que mën nañu xaar sa takkusaan ak Mor Kankan nga xam ne lu mu am ci sa ngeen bu bëre Wow, wane ci sa waaw rek di wane ni man yaakaar ni sama palmarès baax man ñaari mbër ñoo ma jàpp daan ma def naa plus de dix victoire xaw ma onze donc damay sant yàlla aduna nak loolu dafa am si logis, gis bogis. boo gis des fois dina am bis yo xam ne du sa bis te kon bu doon sax dama am ay nyaku yu bari kon dañuy sant yàlla di xam ni lépp loo xamante ni gëm nañ ni mu ñu ko ñu ngi ko manqué ñu ngi koy ut di ko def li si war ñu ngi koy def yàlla mooy may ndam yàlla nañu yàlla may ndam te gëm nañ ni bu la cinqué dinañ gis Tapha mbër bu bees tàq dinañ xeex dinañ bëre. bëre am na maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex maa ko ëpp fit maa ko ëpp doole te su dëggalee boppam làmb ji du yàgg bëgguma wax mais incha allah rabbi su dëggalee boppam combat bi du yàgg. incha allahu moo tax ma gëm ni bii du yàgg que gëm naa li ma liggéey xam naa laa liggéey te xam naa la fa man ci am question rek waaw gëj naa bëre te loolu dafa joué maa ngi woo képp koo xamante ne yaa ngi may bëggee képp koo xam ne xam nga ma. képp goo xam ne yaa ngi may ñaanal képp koo xam te ne supporteru Tapha Mbeur nga maa ngi lay woo dimanche incha allah le 5 ngeen ñëw ñu feesal stade bi ba mu fees del ñu bëree daan ñibbi incha allah rabi combat bu neex combat bu gaaw incha allah rabi maa ngi woo ñëpp di leen wax damaa bëgg ñu duy stade bi te incha allah rabi dinañ duy stade bi maa ngi ñëpp. waa di woo Bamba Bamba Niass influenceur waaw Bamba Niass influenceur maa ngi koy nuyu bu baax ñëw na si stade bi ak din Nouroudine Nouroudine sama doomu ndey ñoom ay patriote lañ waaw di wax sama mbokku patriote yi waaw ku si mel ni influenceur bu ñuy wax Bamba Niass ñëw na Nouroudine ñëw na maa ngi woo yeneen gars yëpp ñu jàpp si làmb ji parce que bi bii nii bàyyi soxla nañ jàppale te metti na si ñun waaw di wax influenceur yëpp ñu ngi leen woo si làmb ji di wax képp ku ñuy bëggee stade bi dañoo bëgg mu fees dell le 5 dimanche incha allah maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous ba dimanche incha allah rabi jërë ngeen jëf. maa ngi woo Baye Laat Ndiaye bu baax a baax a baax ak bi maa si woo.